suñu xel suñu xalaat suñu xol mi ngi fa dañuy jokkoo tout le temps. régulièrement mais il a un discours très responsable. mesuré et très mm-hmm. euh, cohérent ñuy ñaan vraiment en tant que sénégalais en tant qu'être humain. Mm-hmm. lii gaaw a jeex quoi man mm-hmm. mais dama amoon benn euh, question au docteur. sànq rek maa ngi xol si édition yi parce que partout dans le monde c'est le problème pour tous les états du monde. Euh, par exemple kaw France bu bi dañuy mettre en quarantaine ñi ñuy Euh, yeneen dëkk ñëw ñu soupçonné leen par exemple ils ont été mis en quarantaine pendant jours tey la ñu doog ñu dem seen bu ñu amee certitude que ne ñi dara jotu leen. Hmm. dama dégg léegi nga ne am nañu euh, je sais pas personnes. cent quatre vingt personnes yi ñuy suivre. Hmm. mais au téléphone on les appelle. laa j'ai pas compris et j'ai peur, docteur. Non, c'est Comment ça se passe? Expliquez parce que mm-hmm. d'accord. On doit les mettre en quarantaine. ñun et ñi ils sont chez eux, on les appelle au téléphone. C'est quoi la différence? Non, la dif c'est d'abord ñun mm-hmm. dañu ne képp ku fa jóge d'abord euh, zone yu nekk épidémie mm-hmm. foofu kenn du fa jóge. Chine dañoo def quarantaine mesure yi nga xam ne mesure yu draconienne. docteur nga baal ma. pour ba léegi rek mu gën a leer. par exemple Pékin. waaw ku est-ce que nit mën na jógee Pékin. ñëw Dakar. ah mun na jóge. Oh, non ah, ah, d' accord ah, mais Chine la. Chine la Chine la fa la maladie bi. voilà mais épicentre bi mooy Wuhan. exactement mooy Wuhan foofu la ñu mënul jóge génnee fa. quarantaine waaw dem dem feneen mais feneen nit mun na fa jóge. Hmm. ñëw mais nag ñun dañoo def mesure supplémentaire. Hmm. mooy maanaam képp ku ko jóge rek ñun ñoo jël suñu initiative bopp. Sénégal moo jëlal boppam initiative réew mu nekk ak say mesure hmm, bopp mais ñun dañoo jël suñuy mesure ñu ne képp ku fa jógee rek dañu jël sa adresse. ku jóge Chine ku jóge Chine rek. dañu jël sa adresse bu ñu jëlee sa adresse expliquer la na nag yow feebaro parce que ay commerçant yu dem wala nangam feebaro dara jotu la. mais je veux docteur par la question est-ce que loolu. waaw ça peut régler le problème est-ce que mën na empêcher qu'il y ait un cas par exemple wala mu koy mu koy détecter rapidement. waaw ça permet de détecter un cas rapidement sa permet. parce que nit ki su dee am na ko du feebar. immédiatement euh, euh, maanaam su feebaree tamit je veux dire que immédiatement dañ koy détecter parce que déjà ñëw na ne man dama nekkoon Chine dama ñëw depuis démb damay sëqat dama sama yaram dafa tàng wala nangam immédiatement. Mhm. dañ lay dañ lay am euh, dañ lay def prélèvement le premier février 2020 bi am na kenn ku jóge woon Chine jógewul jógewul woon foofu de Wuhan mm-hmm. dafa ñëw dañoo jëloon kii am mm-hmm. euh, adresse am complète son numéro téléphone et moom ci boppam moo ñu njëkk a téléphoné ne ma tey sama yaram moo neexut dama xaw a soj sama fii di metti sama sama sama put bi di metti immédiatement lañ ko jël isolé ko service de maladie infectieuse Dakar mm-hmm. le 1 février prélèvement Institut Pasteur def liggéeyam mhm. rendre ñu résultat samedi boobu ñun ñëpp dañoo jonkanoon hmm. dégg c'était négatif y a rien hmm. donc yeah, c'est yeah. comme ça pers nit kooku génn na d'ailleurs ci suivi bi mooy maanaam 14 jours am mot na ba génn hmm. ñun ñoo def mesure supplémentaire boobu uniquement c'est différent nag ñële aussi am na aussi ay réew yi nga xam ne dañoo am seeni moyen ñoom tamit ñu jël dem jëli peut-être ay des gens. Mhm. mais bi ñëwee def leen en quarantaine. Mhm. ñoom ils ont pris cette responsabilité aussi. Mhm. ñoom ñoo ko defee noonu bon mais. peut-être mun naa wax ne qu'il n'était pas tenu techniquement mun naa wax ne qu'il n'était pas tenu de les mettre en quarantaine parce que amuñu peut-être euh, une raison suffi mm -hmm. des raisons suffisantes mais puisque feebar boobu feebar bi dañ koo ragal dafa d'abord il est nouveau parce que soo jëlee le nouveau coronavirus. Mhm. coronavirus dafa mos a am. Mhm. dafa amoon toujours. mais bi il est nouveau euh, xamaguñ ko bu baax moo taxit mesure boo ci jël rek supplémentaire. du doy du doy. Mhm. loo ci loo ci jël rek. doyul. Mm-hmm. beneen kii mooy mooy euh, euh, euh, propagation bi. waaw parce que gis nañ OMS OMS def na si ay mu ngi koy suivre de façon. quotidienne mu ngi wax ay 60 pour cent de probabilité de propension au niveau mondial. 60 pour cent. Mm-hmm. oui. Ah. loolu c'est ex loolu ça veut dire que docteur moitié loolu c'est si loolu doy na waar mais loolu soo gisee ñu def loolu dañ cee dugal yeneen du question virus bi rek lañu xool garaawaay bi. Mm. mais réew mi mu. bi mu bi mu laal c'est le pays le plus peuplé du monde mm-hmm. ak mouvement de population xoo gis ngeen ni mu lawee noonu même su dee virus bii nu mu gaawee peut-être virus bu nekk gaaw na moom tamit gaaw na mais soo seetee surtout c'est ça parce que Chine bi mu mun nañu wax ne que bii bi fait parce que le 12 décembre la lañ ko commencé nemmeeku le 7 lañ ko déclaré. Mm-hmm. mais bi ñu ko déclaré motul 5 jours cinq millions de personnes génn nañu Chine en moins de 5 jours. Mm-hmm. à moins de cinq jours rek génn génn normal dawuñu de. Mhm. mais c'est un pays bi nga xam ne population bi nu mu bëree. Mhm. tellement le mouvement normal peut-être Sénégal peut-être mouvement normal peut-être cinquante ou vingt trente ou quarante ñooy génn. Mhm. mais ñoom en moins de trois jours cinq millions de personnes génn nañu réew mi voyez que donc ça veut dire que c'est surtout ça il y a d'abord que le virus là il est virulent maanaam dafa dafa garaaw maanaam dafa bees ni muy lawee dafa gaaw. te aussi population bi mu laal euh, bi mu laal euh, dafa dafa dafa bëri. Mhm. mais seulement aussi mun nañu wax ne que Chine aussi c' est un pays puissant c' est une puissance. Mhm. parce que su doon peut-être su déclaré woon ci beneen pays xëy na. du dina gën a euh, dina gën a garaaw. du xëy na kay te c'est sûr. <laughs> virus bi aussi am na am na létalité mooy maanaam li muy faagaagal dafa bëri parce que 10 mm. ba 50 pour cent. Mm. mun nañu wax ne que maanaam ci su dalee ay nit mun nañu wax ne que téeméer téeméer nit yu mu dal daal mun nañu wax ne que dix ba cinquante ba xaaj bi sax mun nañu faatu ci ci feebar kon nag feebar bi euh, virus bi am na gravité. am na gravité te xamaguñ ko bu baax. Hmm. parce que am na ay virus bi nga xam ne xam nañ leen bu baax peut-être que même su dee amaguñu garab yi. xam nañ leen lu mel ni Ebola et cetera peut-être des na amaguñu vaccin mais xam nañ am nay feebar yi xam ne amuñu vaccin wala nag mais xam nañu virus bi natt ko xam nu muy nu muy propager et tout ça mais bii des na ba léegi sur les informations concernant. mais mais mais docteur je vais faire une digression peut-être Ebola ak ak euh, coronavirus ba mu gën a garaaw. <laughs> bon peut-être que euh, société euh, mortalité par exemple société actuellement. parce que société rek ci ci létalité bi. Ebola. Euh, coronavirus. Mm. n'a même pas fait 3 pour cent de mortalité. mais société seeni seen i maanaam seen i dund. Mhm. moo moo moo wute. Ebola am na plus de depuis près de cinquante ans presque. so mhm. c'était mhm. actuellement près de ça mu ngi mu am mais euh, Ebola. ça peut aller jusqu'à 60 70 pour cent. Ouais. ou cent de mortalité. Mm ou de létalité du moins. mais bii on peut dire que bi mu commencé nekk liir. mel ni bés bu demee ba Bejaaw. ça mm. va poser problème. Ouais. donc pour l'instant mais pour l'instant il est contenu dans une létalité quand même qui en fait soo ko xoolee rek parce que moins de trois pour cent dee moom benn nit rek ëpp na. mais mm-hmm. moins de 3 pour cent mun nañu wax ne mm-hmm. que pour l'instant. Euh, xeex bi moom am na. un et entre un et deux. Charles, Charles oui. waaw peut-être revenir sur euh, Amar. man Amar dafa ma impressionné mhm. quoi te il faut vraiment dire les choses man soldat laa gis héros mhm. y a très sénégalais yoo xamante ne ñu ngi fële Chine waaw Cheikh Mbacké ce sont des héros mhm. et euh, ils nous représente dignement dans la difficulté ak boo xamee seen le stress des parents ñoom fu ñu toll nii muy def lii Euh, lii mooy lii mooy ñuy jox espoir. que mm-hmm. nous avons des enfants yoo xamante ne toll nañu si moment quelle que soit la difficulté ils savent dépasser ça. que mm-hmm. loolu ñuy xaar si ñoom que si nekk aussi en bonne santé et vous êtes des héros c'est impressionnant le cœur des Sénégalais. Mm-hmm. et ça c'est impressionnant man defe naa le dispositif boo xamante ne je fais confiance man damay confiance pourquoi parce que Ebola ñëw na fi Ebola pour man moo gën a graaw fuuf. coronavirus Ebola ah, lu mu def comme malheur dans les il y a il y a quatre ans defe naa ou y a trois ans mm-hmm. fii lañ félicité euh, defe naa docteur Eva Marie Coll pour avoir euh, mm-hmm. réglé un problème d'Ebola boo xamante ne xëy na après nous n'avons pas su maanaam euh, créer benn communication mondiale bu doy waar pour moom au monde que ñun def nañ loo xamante ne ñeneen def nañ ñun def nañ ko donc j'ai totalement confiance ci suñu dispositif suñu problème rek mooy que je pense que Sénégal amul moyen effectivement et peut-être c'est là que war nañ commencer di gën a mën a anticiper si lu bëri yoo xamante ne moom mooy ñëw avec les changements climatiques ay nouvelle données yoo xamante ne mën na changer ak bu ñu xamee Sénégal destination la tey bu ñu xoolee ñu yor suñuy pétrole ñu yor suñuy gaz ñu yor économie bu bees bu am maanaa euh, ak benn statut pétrolier faw ñu recevoir ay nit ñu fiy ñëw te defe naa du dispositif mooy cordon sécuritaire bu ñu war a teg maanaam si aéroport ga si port ga avec voie terrestre war nañ ko gën a xoolaat c'est vrai que xamuñu euh, garab euh, kii bi feebar bi si boppam xamuñu ko te boo koy xam mooy maanaam da nga koy découvrir peut que am na benn génie praticien boo xam mu lay may nga koy ngay def face mais je pense que tey war nañu mun a gën a xalaataat suñu dispositif cordon sécuritaire euh, dans différents endroits par rapport ak yoon bu ñuy jël muy doy yoon boo xamante ne ñëpp moom si moom la benn question euh, est-ce que yaa ngeen di euh, parce que xam naa que coronavirus actuellement dans sa euh, ñu ngi woo ay antirétroviraux maanaam garab yuy faj sida. Mm-hmm. moom la ñuy jël pour faj. Mm-hmm. vaccin nee nañu fii ak vingt mois kenn xalaatu ko. Mm-hmm. donc ñun ñaa ngi xalaat si biir ñu ngi liggéey mais léegi fii est-ce que am na fi ay comme amagu leen souche ba. xamagu leen ko euh, par exemple bu waroon ñëw fi tey yan disposition au niveau médical euh, quels sont est-ce que stock médicament boobu yor nañ ko fii ak yu demee noonu ban kii lay nekk tam ban médicament lay nekk waaw merci xam nga euh, virus soo gisee su duggee ci yaram du question virus bi moom ci boppam Euh, li muy def pour li ko xeex moom fi su duggee ba pare. Mhm. mooy moom fi muy jàpp foofu mooy problème parce que problème essentiel euh, coronavirus. Mhm. mooy problème respiratoire. donc réanima problème de réanimation lay doon. Mhm. c'est surtout ça problème de réanimation donc il faut que ñu suñu matériel réanimation bi gën a xarañ hôpitaux yooyu ñuy wax ñu ciblé ni. hôpitaux yooyu dañuy gën a encore yëkkati seeni service de réanimation pour éventer parce que aussi il ne pas dit aussi que coronavirus bi su ñëwee rek forme grave lay def non mmh, mmh, mmh. day def de forme de légère à grave am na des formes légères mais il y a des formes graves forme grave yi nag il faut de la haute réanimation la haute réanimation. lan mooy réanimation réanimation mooy surtout nit ku nit ki puisque du mun a nooy normal il faut que ñu jàppale ko. ci assistance assistance respiratoire mooy avec oxygène. et tout ça bien sûr couvrir que sur le plan également médical sur le plan. antibiotique sur le plan parce que virus su ñëwee su la duggee day ubbi bunt pour yeneen microbe yi dugg. Mm-hmm. donc il faut loolu yëpp am. mais loolu yëpp encore une fois c'est Ebola noonu lay def virus yëpp noonu la ñuy attaqué woo en général ñoo ñëpp loolu noonu la ñuy def donc c'est essentiellement ça mais encore une fois vous voyez les certains pays où les gens ont bon, euh, tous les cas qui, qui sont, qui sont, il y a des guerriers, hein? Mhm. il y donc vous voyez que effectivement su ma waxee ne létalité bi noonu la toll ça veut dire que bi mu amee ba léegi am nañu am xeex nañu am nañu alors alors docteur kii moo doon wax euh, léegi nii ak ah moo doon waxee on est vraiment fier de lui quoi nit ñi mën euh, mettre voilà un un visage sur sur la Cheikh Mbacké Amar moo doon waxee léegi Wuhan fa xam ni fa la coronavirus bi am te vraiment ni Charles wa wax na waxu ku mat wax na way waxu ko